bonjour à tous les internautes de SN. Donc aujourd'hui, Carrefour des Stars reçoit un grand monsieur de la culture hip-hop. Donc c'est quelqu'un qu'on ne présente plus, il se nomme Red Black. Red Black, bon kay boo koy fàttali na bi na yat bi dal Red Black la lay fàttali na na dama dama Red Black la lay donc et cetera et cetera rouge noir. donc nous sommes ci mbedd bi faire gis décor bu nice bi et tout Facile yéene def euh, émission open emission chambou free donc that's hip hop red black salam alaikum yes salam alaikum Jali salam alaikum à tous ceux qui suivent euh, carapide.com salam alaikum à Parcelles seni unité 1 unité 26 sans oublier Cité faya sans oublier amoude sans oublier Mbour Guedj Bargny Casa di Mansa donc Sénégal àdduna wërngal cup salam alaikum Ok, merci Red Black. Donc, euh, merci beaucoup le fait que nous collons, acceptons nous euh, émission et tout. Donc, déjà, nous avons fait euh, aussi sa carrière également. Nous avons aussi Tamichi. rap bi nous mu aussi situation de mais moi je suis un peu nostalgique je vais retourner un peu en arrière euh, juste pour vous demander les débuts dans la culture hip-hop ça a été comment Bon, les débuts ça a été vraiment un apprentissage hein. Donc il y a beaucoup qui parlent de galère, mais moi je ne vais pas parler de galère, je vais parler plutôt d'apprentissage. D'autant plus que j'étais élève, j'étais étudiant avec musique bi donc mu école passion ba musique aussi ay buntu donc mu école ben carrière euh, ça a vraiment eu des moments des moments hauts comme des moments bas comme on dit dans la vie il y a des hauts il y a des bas mais maintenant alhamdulillah quoi tu vois. Donc c'était pas facile parce que aucun apprentissage au monde n'est facile. yomb tu vois surtout ngay nek ndaw nek ci ben affaire ken geumula nga wara deugal sa bop ba tout à coup xam nga nank nank gaay dem ba vraiment am ci confiance am ci yow yaakaar nga nek ben espoir quoi donc alhamdoulillah quoi. ok mais le, mais ça a été pas compliqué avec les parents vu que y a une jàng je crois étudiant nga woon et tout est-ce que c'était pas compliqué le fait que ngay bolé étudier à ak avec les parents et tout est-ce que c'était évident est-ce que c'était facile bon côté côté étude donc déjà man sama famille mos nañoo xam ni dañoo mës a ni man déjà dama sérieux donc, dans mon affaire Bob, sérieux Chinyangmi, à chaque fois, j'avais de bons résultats. Et donc, du coup, je me suis hip-hop, je me suis rap. Donc, certes, je nañoo xamante ni dañ ma suis wax mais hip-hop bi amul avenir hip-hop bi amul xaalis patati patata mais pour la grande partie de ma famille vraiment je peux dire que ni ñoom ñoo nekk sama première fan quoi donc c'était pas compliqué pour toi et tout donc ñu ngi ci cadre hip-hop donc le rap Galsen gis nañ ni booy yu ñu ngi ciy wu bon ñoom dañuy bàyyi seen jàng dugg ci rap et cetera donc a déjà yàgg nga ci donc yow nan nga gisee loolu nan qui est analyser. non mais là c'est c'est c'est une erreur euh, monumentale c'est une erreur que nous ni dara mënu réparer dans la mesure où actuellement il faut que nous amenions le rap surtout le rap. parce que le rap c'est la c'est la musique que nous ni on peut dire que c'est la musique des intellectuels. Parce que Boholé actuellement, c'est une musique qui a été marginalisée. Et donc, du coup, pour nous gommer, il fallait des personnes crédibles. Des personnes crédibles, moi, là, moi, nous savons déjà Djang. Parce que Djang, c'est un solo chinit. Bo si bo Wahé, nous sommes des gens. Bo Wahé, nous sommes maîtrisés. Ce que da comment débattre comment amener un sujet comment poser un problème comment poser un plan et comment apporter des solutions et des perspectives loolu boo jàngee daf lay yom nit ñi dañ lay naw bu da et par contre vous savez du coup voilà des fois c'est compliqué quoi et donc aujourd'hui il faut que nous xam musique surtout hip hop communication la communication dañ koy jàng donc le plus important est Django correct pour nga ko après des compliqué il faut gagner les pour se faire respecter et se faire entendre. Voilà, Red Black, euh, donc il y a un également les productions qui sortent. Chaque jour nous avons X-Tape, chaque jour nous dég euh, voilà quoi, Samba Tape, Mode Tape, etc. etc. Il y a un déjà euh, production Il de bari bari bari surtout avec euh, la nouvelle génération. comment tu trouves ça bon je suis venu ci en années fin 90, début 2000. donc j'ai beaucoup côtoyé les rapports de Guédiouaï. Bon, xoolee ku ci African Black Roots autant bon composé de Malal composé de de de Mansour Cham, etc. donc je suis lu à combattre une affaire Moi, le rap américain parce que on est des sénégalais yuy def rap donc suñu rap dañ koo war a jël ba mu méngoo ak ñun suñu réalité mais tey jii bu faites da nga da nga seetlu am nga seetlu chaque jour booy dañ naan x tape, ay nangam tape, ay nangam tape. yooyu c'est parce que des copies def copier-coller sonnatuñoo ah. ils ne font plus de recherche da ngay dem nga dem nga wut benn beat man déjà pour ma le beat sax pour ma xoolaat ko il faut que ça soit africain yaa comprendre donc léegi facilité internet booy gëstootuñu booy yi sonnatuñu dañuy ñëw déglu benn Drake déglu benn Lil Wayne ñëw copier-coller jël son ba pare ils vont faire la même chose mais ci ay traduction lañ koy teg et en plus de cela booy yi tey li ñuy génne naan ay x tape ay nangam tape loolu noonu ay jamono moo nekkoon suñuy maquette tu te tu te souviens. loolu mo nekkone maquette mais léegi booy amatuñu maquette booy bëggatuñu galérer ku ci nekk da nga bëgg xey rek nekk star da nga bëgg xey rek tari te jànguloo ko donc y a un problème. affaire u x e Net-Tape yooyu yëpp c'est de la facilité c'est des maquettes qui sortent tey ji jamono ji maquette demb tay boy mom lañuy ñuy di def ay je sais pas X-Tape mixtape té loolu aussi yakamti la quoi la musique c'est une carrière bu féké da nga bëgg def carrière il faut prendre le temps prendre le temps nga apporter yow sa touche personnelle parce que dès lors que y a un ay x tape ay nangam tape c'est parce que tu apportes rien de nouveau musicalement moomoo ko da ngay jël ins jàmbur nga ñëw nga teg ci et ay ins après nga génne comprendre donc d'une part c'est la facilité mais lolo non, il faut gars bah, ko et que aussi ku nekk jéem apporter une touche nouvelle Lolo, moo mën a hip hop sénégalais hip hop africain ci kanam tey boo nyagi, ñag yi ñag yi duñ la wax dañuy x ay étape je sais pas quoi parce que nous avons déjà une musique valorisée Nous valoriser ñun nañu à partir de notre culture Nous avons une valeur que ce soit sur le plan linguistique que ce soit sur le plan des sonorités loolu yëpp ñu jéem ko apporter mu musique qui sera exportable à l'échelle internationale Nous avons xool hip hop sénégalais aussi dinañ ko un lancer exemple par exemple l'exemple de Bideo Boubès, c'est une dernière production l'exemple du son My Feeling mais son est original, originalité actuellement Bideo Boubès il tourne à travers le monde pourtant il son a rek parce qu'ils ont compris mais pour se faire respecter nous avons des valeurs valeur u nous avons des musiques américaines, jël musique américain yi di ci teg américain rigolo yaa ngi comprendre parce que nit ki li mu moom munoo ko ci impressionné doom day donc nañu def benn feedback mu nekk retour à la source ñu créer suñuy own feeling créer suñuy own things yu know ba pare ñu jëm ko teg xool nan lañuy def pour internationaliser ko. dañuy dañuy dañuy dañuy xeeb musique Sénégal quoi. parce qu'il n'y a rien de nouveau. Quoi. Je suis désolé. Voilà, retour à la source, ce sont les messages de Red Black. Donc voilà, justement, Red Black, euh, tout à l'heure, tantôt, nous avons il y a Paris. Qu'est-ce que tu as Paris Bon, déjà, je suis mon album. tu sais y a des sonorités yu Sénégal qui sont am Afrique ni amul fenn ci et par contre si côté surtout le côté techno technique côté technologie aujourd'hui il est bien Nous avons une valeur nous avons suñuy son nous mu en ay maquette ñu avons ko ci studio yu comme ça nous pouvons mixer... masteriser nous ko ba mu niveau international donc je suis parti à Paris dans ce cadre et mais aussi dans la réalisation des vidéos parce que voilà quoi il est bien pour chaque artiste nga voyager parce que voyager c'est découvrir yu baisse. te doom day bu la Sénégal vous avez fi toog nga am disque d'or te artistes bu ci nekk yaa ngi toog di rêver disque d'or bu doon disque d'or mun nañ ko am Sénégal sama album bi na dem gis nga impact bi mu am gis nga succès bi mu am sénégalais yi ku nekk yor na ko ci portable am yaa ngi comprendre bu doon disque d'or loolu dina ma may wax mu la disque d'or mais dina ma may disque d'or comprendre nga fii aussi côté hmm, industrie musicale y a un problème les gens ne sont pas habitués à acheter aujourd'hui avec les nouvelles techniques de piratage il a ngi comprendre et par contre tubaab bi dafa xam ak ak yelleef doomu aadama nasaraan yow boo jëndee CD boo ko àbbee du la ko jox donc yooyu yep mu nekk ay marché yoo xam dañ ko conquérir ci kaw ñu indi leen musique boo xamante ne day nekk ay sonorités yu bees ci ñoom mais aussi ñoom dañ ciy gis seen bopp à travers leur culture parce que Senghor li mu naan le rendez-vous du donner et du recevoir actuellement foofu lañ toll ci milieu musique la musique d'aujourd'hui, c'est un métissage. Justement, tout à l'heure, il y a un wax il y a un rebondir c'est Nadem. Nadem, 2012 hein. Donc 2012 Nadem amna succès énorme bu les gens qui wax légui ni rek quoi bu doon fi des mains disque d'or ding disque d'or et tout. Donc euh, sans bobu ak droit d'auteur yi ak niko utiliser cette campagne danaka parce que ñep mom lañ utiliser campagne. Donc voilà, alors, am nga ci xaliss. Bon, déjà une fois encore à tous ceux qui nous suivent. Red Black am nga ci Khalis non loolu joxuma Khalis. Ah. Ah. mais droit d'auteur yeeg tu du sauvegarder nga ko non. bien sûr C'est un album qui a été protégé. mais léegi samay taxe fay samay droit au niveau du BSDA. mais samay droit d'auteur jotuma ci un rond un sou te jalis. mais pourquoi. Jalis yow en tant qu'animateur Bon, je te prie de lancer un message pour Macky Sall dégg ko respecter les droits d'auteur mu fay ma samay droits d'auteur fay les artistes leurs droits d'auteur parce que Sénégal. mais ban lan nga signé ak ñi nga xamante est-ce qu'ils t'ont proposé pour utiliser ce son si c'est une campagne wala alors, ils ont rek utiliser mais pourquoi yóbbu woo leen justice quoi en fait. voilà justice xam nga on est des Sénégalais Sénégal xamul sax yóbbu nit police lolou bu amé légui la am. mais c'est pour tes droits. non c'est pour mes droits. xam avant ngay teub teub di pas, police il faut que tu jaar ci ay La procédure procédure épuisée. yëpp comprends. Je épuisé naa ko tribunal mo suis une convocation Tu comprends parce que c'est mes droits. mais ce qui me fait mal dans tout ça les sénégalais les politiciens c'est des profiteurs. mais Moussa Fagnas, Stanordien, Ken la dara truc même Basimaki, le président. affaire de affaire bi nous ñu les. non c'est dire qu'on a utilisé un morceau de Red Black. pendant la campagne. non personne n'a payé. et c'est pas seulement pendant la campagne ça a été durant toute la période du combat ça a duré plus de un an bu campagne rek mu quoi du premier tour du deuxième tour mais ça a été utilisé pendant plus de un an quantifier en argent le BSDA n'a même pas les moyens de quantifier ça en argent un milliard je leur dis c'est pas vrai c'est plus de un milliard tu sais pourquoi à travers tout le Sénégal tout le territoire sénégalais le ko à Dakar au fond fin du Sénégal chaque jour nous avons fait ngi def ay caravanes ci say ñu ngi def meeting sur le plan national diaspora bi France fait fort dem sénégalais nous ñu ngi def caravanes un milliard ça fait quoi mais mon respect je ma bëgg qu'on respecte les artistes album Bob, bima koy guen tu sais c'était pourquoi dama ne ku nek wayna fi ay son yu engagé mais man Red Black dina ñëw yëkëti musique bi surtout le hip hop yóbbu ko niveau bo xamni ni kenn mosu ko xalaat musul am ay musique hip hop yo xamni dañ koy yobbu ay campagne présidentielle musul am est-ce que mus am ci aduna bi je me demande ma ñëw j'ai réussi ce cap là deug la moonin man dama am moonin par force parce que na mu ko liggéey yaa comprendre j'ai discuté ak ñi nga xamante ni war naa discuter ak ñoom mais muniru Sy Dany mën naa porter plainte Macky Macky on se voit bu ñu gisee mu ne ma tel jour ret bëgg naa ñu gisee parce que. avant qu'il soit président wala. non bi mu nekkee président. Macky mus na la mus na la mus na la kii recevoir quoi. non musuma recevoir. mais fan ngeen gisee quoi? bon gisee nañ ci ay manifestations. dañuy tase ci ay manifestations. mu ñëw red black kay ma ñëw mu ne ma bëgg naa la gis soxla naa la mais Macky il est mal entouré Macky dafa am ñu bon ñu ko wër. yaa ngi comprendre Macky day genn par exemple day casse mu ne laissé les gens pour qu'ils viennent vers moi mais ñepp lañuy ñuy bloqué mooy les dauphins yaa ngi comprendre. ñepp lañuy ñuy bloqué. tu vois c'est man sama waay la de passage quoi yaa ngi comprendre sama waay la quoi. Macky Sall waayu red black la mon tax temps yi waaj dafa am khalis de. Ah. non non bon en fait mais du question de chalice. Euh. Macky joxuma y a une comprendre. mais actuellement j'ai besoin de mes droits. parce que soxla naa ko. bu dee xaalis yàlla surtout. mais pourquoi pas demander audience à Macky Sall nga ñëw expliquer ko un peu? waaw mais je l'ai fait je l'ai refait néna naa la Macky beaucoup bien. bindee loolu du ak ci Macky Moi, j'ai besoin de mes droits terre. J'ai un avocat jël naa lépp xam nga la moo ci des yóbbu affaire bi devant le tribunal.

man depuis université man sama bourse mosuma ko lekk sama bourse lepp musique la boy sama àdduna lepp sound la mais une fois encore pour nous respecter les artistes parce que artiste febar na fi bëgg faju mënul faju ba dé chaque jour nga dégg artiste bo xamantani day woté walu tu vois mais ñun génération bi lolu ñun ñoko wara mëna dakal quoi on n'est pas des griots nous par exemple on est des rappeurs Macky ak luñu xamanté ak lu mu nekk sama way quand ça ne va pas je lui dis que ça ne va pas le dernier morceau que j'ai fait, étudiant, je l'ai fait avant qu'on ne tue Bassir Faye parce que c'était prévisible. Mais je leur ai dit ils ont tout fait pour nous Fallo. Si vous étudiants étudiant, étudiants duñ étudiants, dimbali dinañ combattre watch. vous avez pris des engagements il faut respecter ces engagements nit boko on n'est pas des griots Demain 2012 bi et tout donc gars ils ont reçu des menaces genre am menace gars yi si si kan le bon brina man say émission on m'appelle ça ay nday xam nga dañ patati patata donc ay. appel privé man dem naa ba benn instant nii man sama tour mu ngi liste rouge. mais boo de porté plainte contre X. waaw yow yàlla laa leen porté plainte porté plainte a wóor. di dem di plainte police yooyu mel ay ñun def. ok loolu pour que Abdoulaye Wade wàcc changement am. donc yàlla def na changement bi am la alternance bi nous sommes n'est-ce pas donc euh, Macky président de la République pratiquement je crois il 2015 donc trois ans am fait trois ans déjà est-ce qu'il y a réellement un changement ak dafa à rupture dafa avec des gros mots accélérer la cadence rupture etc. est-ce que l'eau réellement ça se voit ci la population petit Sénégal est-ce que réellement rupture est-ce que réellement changement bon changement amna, amna un changement positif comme amna est changement négatif Un changement positif parce que le gars vraiment il a fait des engagements même fait des defeewu ou sax ñun ni ñu ko yaakaaree woon mu ngi gorgor quoi mu ngi quoi yang comprenez comprendre mu pour am autosuffisance en riz chaque jour xam sais il ngi si fait quoi ce dañ koy encouragé Nous na pour cette location c'est une belle initiative. Mais location, il y a des gens qui disent, il y a des gens qui disent que nous Hamanteni respecte Aounyoko. C'est moy mesure d'accompagnement Mesure d'accompagnement une fois encore actuellement tay la location New York. Le gars il veut bien. Il y a comprendre mais amul mesure d'accompagnement.

yang comme ah, xamé nga woté numéro buñ joxé non ban numéro té parce que déjà ñom dañ jaxassé ak locat ak ñi loué borom kër yi loi bi dafa jaxassé locataire yi ak bailleur yi comme nan nga té ñun buñu togué au fond dinañ xamné du nguur gi mom mo tabaxal gaay seeni kër quoi ñom ñom mom seeni kër quoi comprendre nga lima et donc du coup côté bobu aussi mu nek ben échec amna ben échec bi gëna graw c'est la traque des biens mal acquis maki ñi mu jàpp tëj leen ci kaso bi ay aw kudd njaay ñooñ dañ kaso bi mooy seen place actuellement ñu ngi APR il a échoué qu'on le dise ou non a échoué parce que ñii nekk ci nguur gi noonu nekk ay sàcc dañ leen war a génn nguur gi àtte leen leur place est en prison. C'est pas dans l'équipe présidentielle quoi. Voilà, Ablaoua déjà il est sur Dakar pour ça. Il manifeste, il manifeste tant et tout. Il y a même des gens qui, qui se préoccupent de, l'état de, sa santé et tout. Mon il manifeste pour Karim Wade, etc. C'est un échec. C'est un échec. Ça, ça finit par être une question politique. Tu vois ah, Donc tu trouves que c'est une question politique Énormément. Politique sur aussi bon plan, plan. Sur les élections à venir donc Karim Ouad bien sûr ah. actuellement libérer Karim Ouad pourquoi parce que ñim ça yu ñëpp ay mais Karim mais Karim on nous annonce des milliards. directeur de de la LONAS. Karim même bu faire dañ koo jiñ xam nga ba amul preuve palpable bu ñu ci table mais ñi nga que nous am preuve ci directeur de la LONASE ay a Koudou Ndiaye ñooñu dañoo am preuve c'est insensé ça n'a pas de sens Vous comprenez? mais l'idée d'al Karim ni. dafa am leneen lu muy lu muy indiwaat loo xam sénégalais yi fàtte nañ mais yeen ñi may déglu dama bëgg ngeen prêter attention bu baax. wad liko dal ni wad yalla ko yàlla suturaal mu may ko gudd fan. Hmm. parce que wad tay bu déwé hmm. sa l'histoire sera identique à celle de Baratal. Baratal papam dafa souffrir ba dé biñ ko jappé tej ko ci kasso bi te Baratal ñëpp xamoon nañ dañ ko togn l'histoire de Karim et l'histoire de Baratal ben la dañoo togn baratal, togn biñu togn baratal. actuellement Karim mom la nek di payer les pots cassés parce que même problème yi la Karim avait menacé baratal, ne je vais te détruire te non, la ko défé yàqal ko alalam japp ko tëj ko ci kasso bi pourquoi parce que dañoo bëgg ñu def baratal def ben sale boulot quoi mu ne leen du ko def man jullit la man duma taxal idi nan idi moma jox li jox ma lële te idi joxuma dara ñu japp baratal ñu tëj ci kasso bi ba papam décédé ci. Ablaye Wade na sant yalla parce que deewagul ah. la mais yalla xalé bu gor la yalla day fayu quoi. Justement, mais si ban état lañ nek si on parle euh, un état de droit si on parle euh, Sénégal c'est un pays quand même euh, voilà quoi c'est ben deuk la bo xamné amna loi amna na yoon et cetera et cetera mais est-ce que lol non kon donc ça veut dire que ci kaw la ci kaw la exister gul quoi. de loi tu me parles de pays de droit. tu vois je suis désolé hein c'est les politiques entre eux c'est des règlements de compte que nous ne gis ne nous parlez pas de droit ne nous parlez pas de loi parce que les droits et les lois sont dirigés par les politiques ce sont les politiques qui votent à l'Assemblée nationale nous avons une assemblée présidentielle dans la mesure où la majorité appartient au camp présidentiel donc ne nous parlez pas ni de droit ni de loi. C'est la loi du plus fort et que les plus forts sont ceux qui sont majoritaires actuellement. C'est comme ça le Sénégal. On te dit souvent, le régime présidentialiste est dangereux parce que ça mène, ça mène au, au dépotisme, ça mène à la dictature. Quand le président de la République a vraiment l'Assemblée dans sa poche, là, c'est un symbole de dictature. Actuellement, c'est ce qui se passe en Afrique. Et moi, je suis contre ça. Quand le président vraiment élu, on doit tout faire pour que vraiment l'Assemblée nationale soit équitable ou moins, ou plutôt minoritaire que le camp présidentiel. Quoi. Mais pour faire que y l'Assemblée une Assemblée nationale, vous c'est l'Assemblée nationale. Ça, ça, ça, ça, dérive souvent. Donc, comment diriger diriger ces dictatures, quoi, en un Je ne dis pas dictature, parce que l'erreur, les Africains, est ont fait à président. mais on nous dit souvent ret ret. mais on nous dit souvent que le peuple le peuple sénégalais surtout c'est un c'est un peuple mature les gens sont matures parce que Abdoulaye Wade ba ñu fi bëggee mu jógee fii ñëpp si taxaw mu jógee fii bon demain rebondir ça en 2000 alternance bu njëkkee am donc Abdou Diouf ba mu mu si jàpp mu jógee fii Ablaye Wade également y a eu même des morts et tout donc mu na fi mais jusqu'à présent même sax morts yooyu noonu clarifier wu ñu ñu leen etc et cetera et cetera n'est-ce pas c'est des gens yi nga xamante ni Karim Wade par exemple moom moo leen ëpp doole Kenen ak keneen ñooñu ñoo leen ëpp doole comprends parce que ñooñu am nañ ginnaaw am nañ et cetera et cetera yow nan nga gisee loolu. bon déjà euh, Mimi on se vit Mimi sama xarit la de passage Mimi Touré. accélérer la cadence accélérer la cadence. dañoo toog di waxtaan. ma Mimi mu ne ma Maniko ni ko ñi yónnee woon Barthélémy nervi kan la mu ne ma ñoo ñëpp xam nañ leen ma ne ko sénégalais yi dañoo war a xam ils le droit te dañoo war a xam ñooñu ñan lañ ak kan moo leen yónni ma ne ko ana dragon bi ana kii rey Mamadou Diop mu ne ma mu ngi si ñuuf bi mu ngi si jeel bi ma ne ko da ngeen cee war a communiquer vous avez un problème de communication donc il faut alerter la population bi dañ ko dit que le Sénégal est un pays mature. nous on n'est pas mature on n'est pas un peuple mature désolé mais on est un peuple sentimentaliste sentimentaliste mooy bu le la tooñee je yërmande dañ lay jàppale. ce que lolo ko parce que tonne, nañ ko je ko PDS c'est des nous, sommes un peuple sentimentaliste. Vous comprenez Nous sommes beaucoup Vous comprenez Mais aussi, les Sénégalais, il faut que nous sachions Sénégal, bataille, nous sommes le président de la République. Sénégal, fille, nous sanctionné. qui a eu la chance d'aller faire sa campagne, de battre campagne, contrairement aux autres lolo aussi taxna tay yalla tek ko mais Sénégal dans sa majorité nous n'avons pas élu de président mais nous avons sanctionné un président Karim il n'avait pas le droit de lui ay jet privé suñu xaalis pendant combien d'années loolu fan lako tek ban ban rew la am ci c'était le gaspillage total avec Abdoulaye Wad. c'était la dictature à un moment donné Nous, ñoo doon xex Abdoulaye Wad, parce que dañu avons une raison rew mi dafa damone ba dafa yàqu jikko yi dañ dëkk bi corruption bi dafa jéggi woon dayoo tey sama waaj bu ñëwee di def ay jéego jéem a xeex corruption ñun ñoo ko war a mun jàppale parce que sénégalais ñun kenn xamul lan lañ bëgg nag. parce que actuellement ñu ngi naan xaalisu drogue bi moom dañ ko war a bàyyi muy circuler quoi parce que dëkk bi dafa dëgër dafa kii non man je préfère ñu tëjji yeneen filière yoo xamante ni nañ si am xaalis que ñuy bàyyi ay xaalisu drogue muy dugg ci réew mi. Ce qui veut dire qu'au temps d'Abdoulaye Wade, il y avait beaucoup de trafiquants de drogue. Mais lolo bahul, bahul c'est une économie, bahul c'est bahul c'est moi Ça c'est dangereux quoi. Karim, bon, diap bin ko diap, certes néhuma. Pourquoi Parce que ça, tu brèves une vie, nous avons des preuves sur nous, nous avons des Côté Bobo Maki, il a échoué, lamentablement les gens disent que Karim le milliardaire Karim le mu milliardaire dafa etc., mais c'est quoi exactement le problème ba Nous trouver preuve Là, problème est-ce que justice bi mi son rôle convenablement mais il doit subir subir pression c'est quoi exactement le problème. bon moi je ne vais pas dire que ça va être. la Karim va la bien vrai que sénégalais aussi ku tu as raison garder quoi xam nga quoi en tant que ministre du terre du ciel. ax problème bi bi amoon digganteem ak Idrissa sec mooy milliards yooyu taxoon ñu tëj Idrissa Seck sénégalais yi xamoon nañ ne nekkul chantier de Thiès te problème boobu mu ngi jóge woon ci Karim Wade yaa ngi comprendre booy bi il a toujours été vraiment mêlé quoi ci ay problème d'argent affaire yooyu te ñi nga xamante ni tey ñoom ñoo dem képp ko c'est parce que am nañu ay soupçon que ni booy bi yor na moo comme yow ni nga amee soupçon yooyu ma am ko keneen ak keneen mu am ko yaa ngi comprendre mais nit boo ko jàppee nga ni ko da ngaa sàcc lii mais la preuve incombe o demandeur yow moom nit ki boo ko jiiñee da nga war a wan ni vraiment booy bi moo sàcc lii moo sàcc la le mais bu fekkee sàcc la sax te kenn prouvé wul li mu sàcc bon nañ ko war a bàyyi ñi ñu warut a bàyyi nag mooy ñoom awa kuddu njaay mooy sàcc yooyu nga ay baylaa wan sàcc lonage yi nga xamante ne ñoo lekk moo ne réew mi ñëpp jàpp leen audit yi jàpp leen ba pare njay ñu ngi ci nguur gi ñu blanchir leen ça c'est injuste Voilà, justement, juste pour vous rappeler qu'on est toujours avec Red Black, euh, ça se passe euh, sur buzz.sn dans Carrefour des Stars. Red Black, xamna légui légui émission bi Bidjer. Dañuy dañuy tëj rek ci parti ci ci parti Non, le Sénégal. À ton niveau, l'avenir du Sénégal nan ko ko gissé avec ce régime là qui est qui est en place bien sûr. Bon, déjà avenir du Sénégal euh, avez amna lenn lu ci communication l'arrivée de Wade au pouvoir il y a un slogan il faut travailler toujours travailler encore travailler et donc il faisait rêver aux Sénégalais et par contre ce régime-là ne nous fait pas rêver ce régime-là croit que y problème des problèmes, et par contre il faut que tous les Sénégalais nous imprégnent vraiment ci développement Sénégal il faut dialoguer avec les gens ça manque de dialogue ñi nga xamante ne dañ leen a fal tey jii koo ci oo du la jël xamatuñ la c'est des pouvoiristes yoo xamante ni wane nañ ni ñoom c'est des pouvoiristes faaleetuñu askan bi c'est des arrivistes man je déploie ça Sénégal li ko jëma li ko mën a jëmale kanam mooy ñi ñu fal nañu xam ne ñoom nekkuñu suñuy patron ñoom suñuy jaam lañ ñoom dañoo war a jaamu askan bi dañoo war a jaamu bànneexu askan bi ma dikke ñaa déggoo fi ay doomam sàcc nañ ko ay presque ay ay presque lu jege milliard diko ko mais xaliss bobu yëpp ci kër ga la nek ci biir kër ga lañ ko sàccee presque 1 milliard mais doom day ça c'est indigne alulu rew mi ñi japp sàcc ko rawale ko ku ne gars yi sàcc ñu waxu deug c'est de grands voleurs et l'histoire nous a donné raison fi gis nañ fi ñoo xamni sen domi dañuy passer passeré alulu rew mi lu leen neex lañ ci def yaa ngi comprendre du coup alal jojo ngir yàlla yonent bi nañ ko dugalaat ci askan bi dëkk bi dafa metti na yat bi dal na yat bi dal Macky Sall na yat bi dal <laughs> dama ne ku sàcc alalu réew mi na ko goqi baristo mu nekk sama booy nekk sama xama rek ci waa nekk sama famille quoi parce que hip hop bi hip hop du compétition Yang comprendre hip hop dafa nekk loo xamante ne ni tu vois c'est affaire de famille là, tu vois affaire de philosophie là, tu vois donc du coup ñun ñi ku ci nek aussi da ngay bay sa waar mais suñu relève il faut que ñu assurer ko té ñun ñi ñoy suñu relève my boy what's up xaalis everless dal ñom dañ la jël def le fees si biir bés nga war a gis dëggi dëggi yàlla xaalis ibalis dal ñom dan la jël def le fils si bir bes nga war a gis dëggi-dëggi ya ayaw wachap barisko das manay wala ya ma len di bëggee ñep ku nekk sa tur ak sa centre yo ya, ñu fatale ko ñoo ngi FD connection Fadia di bëggee inte 1 ba 26 len bëggee ñep yeah red black waaw mo fi nekk mo fi teewal Fadia wa teewal wa PA ñep yeah mo mo tewal population bi fi yëpp fi ñep ñu fi teew Red Black moo leen teewal di leen xamal ni ñu ngi si ay yeneen projet yu gën a bengeeng yi ngeen di gis naan ay yat bi dal am na yeneen yu nekk ci ginnaaw yu gën a bengeeng yu gën a garaaw ay yat bi dal fii ay conteneur yi conteneur yi lañ denc essence bi fii ku fi deful leneen loo warul def ñu tegaat leneen loo musata xalaat waaw noonu la fa taajo waaw bëggee ngaa ñu ngi leen di bëggee yéen ñëpp ku nekk sa tur ak sa sant eh, jaayeen jëf. jaajëf bro ñu ngi lay bëggee ah bu baax a baax jaajëf ma bro Radyo FT. E, ja, Eh, yow tey fu ñu ne étudiant nga dégg booy yu réew yi booy yu beew yi ñoom rek nekk ñu ci réew mi tey fuñ ñu ne étudiant nga dégg troublard yi booy yu doy waar yi séquestré katu yi tey fu ñu ne étudiant nga dégg booy yu désespéré yi booy yu dëkkee weere yi noonu borom beere yi ñàkk pexe tax ñu bare tali téere yi àq ak yelleefu étudiant yi la nguur gi joggati dëkkee jalgati seen liberté mu foqati franchise universitaire foo tourné gis takk der mel ni camp militaire mel ni dañu nee ci guerre mel ni ay prisonnier mel ni ay prisonnière lu ñu la teg nga nangu ko rey la dagan na buumu jaam yi dog na bañ ba deelu gën la képp ku yëng ci wàllu wii di droit de l'homme mayal loxo étudiants yi ngir ñu jot seen freedom one Voilà, merci à tous les internautes qui nous regardent sur buzz.sn dans Carrefour des Stars. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, on avait comme invité Red Black. C'est un artiste rappeur qu'on ne présente plus. Et on se retrouve, Inch'Allah, la semaine prochaine pour un autre numéro de Carrefour des Stars avec une autre célébrité. Merci à tous. Odma and we together. No more pen peace forever. I'm out.